Yeah guys, what's good, what's good? It's your new boy Lord West. Guys, salam alaikum, salam alaikum. Dal jam sur ma chaîne YouTube West Show. Comme nous le faisons chaque fois. ok gars yi damay ñëw wax tey si li nga xam ne moom moo nekk di daw si dëkk bi Plaja ban son bandé eh my bandé yaay ma ni son bu dóob nag son bi dafa neex wax dëgg fa yàlla booy dafa neex nag son bi da bàyyi naa wax sax mën na international quoi après par la suite laa gis ay gars yoo xam ne bind nañ ma li nga xam ne moo di message son bi dañ ko sàcc xam nga son bi waaye xaw ma tril grippe la tudd aram give a wax dëgg fa yàlla mais en bi daal man wax na ma neex na ma en version wolof quoi gars yi dañ si tegoo neex na beat bi neex na flow bi neex na waaw même bu fekkee dañu saaj flow bi yëpp même bu fekkee lépp même chose la man maa ngi si cons quoi maa ngi koy déglu si je crois que loolu mooy l' essentiel quoi parce que nañu waan dëgg quoi rap galsen y' a de plagiat yu fa nekk si style de musique Sénégal amul benn rappeur boo xam ne créé na nañu woon dëgg amul benn rappeur boo xam ne créé nga képp kuy rap de old school to new school da nga basé aussi nga xam moo di américain yi muy beat muy style de rap muy xuural baat muy lépp loo gis ni nga bu nekk da nga am si koo am comme inspiration nga woy ni moom mais pourquoi s'acharner seulement si ñaari booy tandis que y a des milliers de sons yoo xam ne génn nañu Sénégal yoo xam ne yu si bëri bëri bëri bëri ay plage al mais quand dinaa leen jox aussi tamit li tax ma wax loolu parce que y a beaucoup de rappeurs américains italiens français mënoon naa leen jox beaucoup de nit yoo xam ne def nañ li nga xam ne moom moo di plagiat mais gars yi perte ñu seen temps comme ñun sénégalais yi ni ñu siy perte suñu temps aussi tamit gars yi. ñun ñu war a lijjanti mooy naka la ñu a def ba suñu musique bi dem si biti ba américains yi di ñu plagiat parce que américains yi pour ñu plagiat li nga xam ne moo di waa Sénégal il faut mu am benn rappeur boo xam ne il est connu te rappeur Sénégal personne n'est connu personne n'est connu maanaam bu fekkee xam nañ leen sax américains yi envié ñu leen parce que américains yi ñooy créé ñun ñu toppandoo kon ñun depuis ñu commencé def li nga xam ne moom moo di rap ba léegi américains yi la ñuy toppandoo yi parce que ñoom lañ jël modèle temps yi la gars yi commencé jël aussi tamit UK trap bi dama leen jox tuuti exemple si ni nga xam ne mooy yenn rapport yoo xam ni gis naa ne carrément histoire retiendra ay son yu dóob yoo xam ne doo xalaat sax nit ki waaye nan la mën a def ba créé loolu ndekkee daf ko plagiat daf ko sàcc te bu ñuy sàcc ñoom sax au moins ñii bu ñuy jël benn affaire boo xam ne c'est flagrant mais ñeneen ñi bi ñuy sàcc dañuy jël ay affaires yoo xam ne ay future moo ko woy son boobu noonu dafa am son bu ko gën a dóor musicalement parlant flow bi nga xam ne ñëwoon na si technique bi nga xam ne tegu na ko si kaw bit bi te bit bi def na la son bi def na tabax mais son boobu noonu est-ce xam nga ne sa waay daf ko jël si benn waay bu tudd Tommy Butler son mu ngi tudd Prison son mu ngi génn en 1976 mais gars yi bëri xamuñu ko. ma joxal leen beneen son benn gars bu tudd SCH benn rappeur français la am na benn son mu ngi mu bu tudd Anarchie dafa sàcc. clip bi non seulement flow bi son bi mais dafa sàcc aussi tamit clip bi nga xam ne moom la MGK defee li nga xam ne moo di Alpha Omega après gars yi ñëw bind suuf rek xam ni ah diw ndeke son bi moo moom dafa sentir li nga xam ne moo di style de son bi mu tegu ci mais jeexul de je vous ai chaque dëkk may naa la benn am na benn rappeur bu tudd fii Gali Italie mooy rappeur bi mooy rappeur bi nga xam ne rappeur artiste pop rappeur bi nga xam ne moo gën a siiw Italie je peux dire que jamono jii mooy bomb gaale dafa am na son bu mu tuddee lacrymé lacrymé mooy rongoñ boo xam daf ko sàcc ki nga xam ni moom moo di Miami Yacine Miami Yacine ban son la génne son maa ngi tudd cocaïne boo leen demee seetaan ko di ngeen ko gis même style même flow. am na keneen koo xam ni mu ngi tudd euh, Guèye Pequeño ak son bi nga xam def na ak Plaza xam na dafa sàcc li nga xam ni moom moo di El Drago two in the pump kon nga xam ne am na lu xew gars yi dañuy jëlante dañuy xool benn vibe su mu neex leen ñu ñu tegu ci ba si ay rappeurs yoo xam ni gars yi peut leen respecter aussi tamit on va parler de PNL ODD PNL ODD kan moo ko soppul kan moo ko dégluwul mais PNL son boobu noonu est-ce xam ne daf ko plagiat daf ko sàcc daf ko jël te loolu aussi tamit je ko woowee copyright wala genre mais aussi tamit dafa am si ku mu a tegu si li nga xam ne moom moo di son ñu jëlee son bi mu ngi tudd Luke Gardner baa ngi tudd Amber Bloom déjà loolu aussi tamit mën ngeen ko dem check jëm leen li ma leen jox nii mën ngeen ko dem check Lil Pump Nif Yo ak benn booy bu tudd Smokoff defe naa la tudd booy bi dafa sàcc son bi si benn gaañ boo xam kenn xamu ko son baa ngi tudd womp womp kan moo ko woy Wally ak ki nga xam ne moo di Jerema te pourtant gars yi kenn dénoncé wu ko y a des personnes yoo xam ne woy nañ si style Gucci Gang Gucci Gang mi nga xam ne Lil Pump def na ko fii si Italie même style même flow seulement langue bi rek moo changé te pourtant foofu moo gën a yomb pour gars yi cramer la que nga nekk biir Sénégal olof bi nga xam ni génnagul fenn ma jox leen nag bi nga xam ni moo gën a dee nag si yëpp nag mooy Drake bu mu génnee KMT KMT mu ngi ko génnee en 2017. mais est-ce que xam nga ni KMT daf ko sàcc si benn booy bu tudd ex ex tentation son bi tudd Look at Me bi nga xam dafa génn en 2015. Look at Me bu mu génnee 2015 aussi tamit moom xam nga dafa plagiat moo wax wala xëy na dee na pare sax mais ñi nga xam ne ñoom ñoo yor li nga xam ne moo de ay son mënuñu wax dara parce que moom si moom dafa plagiat beneen son boo xam ne génn na en 2007 10 ans après benn son xam ngeen son bi nu boo leen di mbindee changement di nga gis ni changement en 2007 génne na son boo xam ni ah moom la moom la sam waa ji dóor look at me mooy ex extension sam waa ji ki nga xam ne moo di direct dóor ko aussi tam si li nga xam ne moo di KMT kon gars yi lii est war na nekk benn débat boo xam ne war nañ toog di pet suñ temps di si wax xam nga nañu xool nan lañu mën a def rab bi ñu évoluer ko ban tactique la ñu mën a utiliser ba su boobaa suñu bit beatmaker yi dinañu mën a am benn création boo xam ni kenn du leen wax ne da ngeen plagiat parce que fii nii même même ñun dañoo plagiat ba découragé mu di son mbalax son nigériens yi plagiat nañ ko euh, euh, euh, nigériens yi ni ñuy woyee plagiat nañ ko koro koro koro plagiat la y a beaucoup de trucs yoo xam ni plagiat la nañ waaye yooyu quoi gars yi vidéo loolu la c'était juste pour jox booy force parce que wax dëgg fa yàlla ils ils sont pas ils pas aussi les derniers continuer leen def leen seen promotion son man moom maa ngi ci ba léegi moom bon di eh, maay bon di pa pa pa West Show let's go nañ ko tëgg after coole ya. Oh, aya si waaye matadi kasara aya si waaye.